équipe bi faible ñu xëy na tamit ah, nu ma ko mën waxee xam nga match moom match la rek te match yi amul solo quoi tey mun koo ñaan ma ko yàlla match mun si ñàkkoon tamit amul solo quoi match yi am solo mooy match yi ñu mais li ñuy gën li gën a am solo si ñun mooy ñu concentré wu suñu équipe ba pare gën a bañ a am ah, boobu rëy daal yaakaar ni ñun ñoo fi mën wala ñu fi def kenn def ko defaguñ fi dara li am solo mooy sixième match bi quoi te ñun ñëpp foofu la ñuy xool Égypte ñoom ñoom. ñoo leen ëppoon doole ñoo leen gën a physique xam nga soo dañu bëggoon a paanuñ saa dóor si biir dóor si biir dóor si biir bañ sonn parce que mbëkkante boobu da leen di sonal parce que ñoom ay tireur lañ soo ñoom bu amee seen tànk rek dinañ ñu mën a sonal si ay tir 3 points boo gisee dañ leen a sonal si tiir yi moo tax ñoom mënuñu woon a dugal 3 points bari quoi. xam nga loolu moom ñëpp ñoo ko war a tontu xam nga man bu dee man rek bon kontaan naa si li nit ñi ñëw fii jàpp si équipe bi supporter affaire yooyu mais man bu ñuy joué ci nekk sax xam nga.

lu ci waaye mën nga ñëw jàpp ci kaw parce que deuxième gaynde bi kenn fayu leen kenn joxu leen dara nii bàyyi seen yitte ñëw supporter ba sonn quoi ñoom ñoo gën a sonn jour yi kon nañ leen dimbali quoi